daje bi nga xam ne ñu ko doon def tey jii li ko waral yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mooy bis bi nga xam ne mi ngi sunu kanam muy le 11 août war a mën benn fan wara ñaari fan ci weeru muharam te Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di xalifa général de Mouride. joxe woon ndigalul su bis bi ñëwee ñu jàng si xasida mais bis boo xam ne kon journée xasida la bis boo xam ne nag wuute na ak journée xasida yi nga xam ne moo daa am ndax bis bi ki nga xam ne mooy jiital yoonu mu murid yëpp moo ko santaane loolu nag tax na mboolem ñi nga xam ne ñoo ko seq di sëñ Youssou Diop jawriñ daara Hizbut Tarqiyyah di sëñ Amsatu Mbàkke mi nga xamante ràññ ko na lool ci xasida yi ba sëñ bi bi mu jox ndigal li sëñ yuusu da ko jox ndigal nekkoon a dem ba sëñ sa yëgal ko ko kon loolu nag muy bis boo xam ne bis bu màgg la wi tamit di wàccaay wu rëy loolu nag ndigal li moo ñu defee ko ci jumaa ji ak li ko wër topp ko ba egg daaru minam kon sañ naa wax na jumaa ji mooy le théâtre des opérations mooy barab bi nga xam ne fi la lépp di ame loolu nag kenn ku nekk xam na ne muxadamatul xidma moom la sëñ Touba jox barab bi mu koy taxaw du ko saytu ci anam yépp muy barab boo xam ne des fi julli des fi jàng des fi siyaare seen yitti jëpp nag jëm ci taxaw barab bi di ko toppatoo bala sëñ Touba bëgg mu am fi di fi am kon lu mel nii soo koy def mënoo ñàkk togg ak moom waxtaan ak moom ngeen nos ci anam yëpp nuñ koy defee ngir mu gën dëppoo ak li nga xamante ne moom la Sëñ Tuubaa bëgg loolu moo tax tey jii kon jëwriñ daara ji sëñ Youssou Diop teewoon fi ay ndaw yi sëñ euh, Amsa teew fi ak commission yi nga xam ne ñu seq liggéey bi ñu ñëw teew fi ànd ak waa Muxaddamatul Xidma ñoom tam ñu teew fi ak mboolem seeni commission ñu topp ko commission buñ jël wax ci ba tënk ci dara jëlaat beneen topp ko noonu ba commission yëpp jàll nga xam ne wax na jëm ci wàllu aménagement mbaar yi ñu fi def nan lañ koy defee nan moo gën a jaadu gën a jekk ci ñu war ko mën a defee wax nañ ci wax nañ ci wàllu sonorisation bi nan lañ ko war a nosee ba mu dëppoog li nga xam ne moom méngoog barab bi wax nañ ci wàllu communication nan nañuy defee reportage yi ak li ci aju lépp nga def liggéey bu mucc ayib ci ko jàllale bi àddina sëpp gis ko nan ñu mën a nosoo ba ànd def loolu dëgg la naam amoon ay euh, commission yu amoon waaye commission yooyu nag doon war a jokkoo ak commission Moukhaddamatoul Khidma ngir ñu ànd liggéey boobu restauration ñu fi war a am ndax togg yi danañ ko def ci ay barab ci dëkk bi waaye su noppee dañ ko indi fa mbooloo mi nekk war koo séddalee mu jëm ci wàllu mbooloo mi kon loolu tamit yan barab lañ ko war a defee ak nan lañ ko defee loolu lépp doon na loo xam ne marché nañu ànd tënk ko ci gàttal daal bàyyiwuñu lenn bi ñu fi jógee nag gannaaw bu ñu julee timis ba noppi dafa mel ne ñëpp feeñal ak cant ndax yëg nañ ne ay turu mbooloo moo wuute waaye xel yi ak xol yi ak jubluwaay lépp benn la kon bu ñu fi jógee daal kenn ku nekk am nga saña wax ne xol bu sedd ci am yaakaar it ne nii ñu nos suñu amee ndimbal ak tawféex ba jaar ci li nga xam ne mënuñ sàkku ci mu Sëñ Tuubaa dañ ko mën a am